Bye bye. محمد خير الأمم تظلوا رمى مضجها من على من قبل جيبو قبري كسوى الخوار دفلني يما دسني واجا أي سيدنا محمد عبد الله ما تقلم ما بقي بوي بقي بقي ينن تبي booy soppi soppal sayyidina Muhammad yeneen bi ترقى بالمشاغل خفير وهذا بالمراتب سمية تبت يدا كان أمك كدل سيدنا محمد تبت يدا من لم يدعى بيلام لو يجاب لبان على li Cheikh Sadou ku ci def nii rek yàlla nga dem ci Mouhamad na ñëpp wax ñett yoon sallallahu ala muhammad bàyyi leen dama yéen déglu leen ñoom laa bëgg ñu julli ci yonent bi jàng balaa moo neex ñu julli ci yonent bi wax leen sallallahu ala muhammad bilaay jigéen bu ko ci wax am wujj wujj rek ngeen bañ xam naa ne seen fit day dem wax sallallahu ala muhammad waaye na biir waa yi te xanaa bëgg leen yonent bi amoon express wax leen sallallahu ala muhammad wóor na yàlla ku ci gën a kawe di nga dem ren ci yeneen bi sallallahu ala muhammad waa léegi xool leen xool leen dem ci yeneen bi ak bañ a am wujj bu dàq ah ana ñu bëgg yeneen bi yaa ma amal yaa ma manal rabbi samawaay leen ngir ku dul Chérif seen maam Seydina Muhammad. يلا يا شهيد يا رشيد يا رشيد يا صبور اي يلا مي مي وي كن يلا ملو دارا def leen nii ñu sàbbal ki ñi moom borom jaami li mu ko laal nga xamné né moy sunu ganté di docteur Diayta ki nga xamné né ne gi sa guddi la te kenn ëmplante wuñ ci liñu joggé moy élection yi ñu joggé ak campagne bi té ngeen def ko ci jamm ak salam ba yalla def li gën ci réew mi ak li gën ci ñun ak li gën ci Sénégal yépp moy yalla may leen ndam bu set wéj te ñu ko doon ñaan yàlla suba ak ngoon guddi ak bëccëg te ndam bi ngeen am yal na leen yàlla yal na leen jig ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vision bi ngeen am ba bëgg fa yeggali senegal yal na leen ko yàlla defal ci barke Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam man suma kàddu dugg sori ndaxte jëmm yi bu ñu toogee bu ñu toogee fii man aw ma kàddu ndax kilifa bi dafa bëggoon a jël kàddu mais nee naa ko du jël kàddu léegi ndax bu jëlee kàddu rek beneen kàddu amatul lu dul ñaan moo tax ma ñaan ko ci ndigalam mu toog toog ak jataay bi ba ci kanam waaye gan yi toogaay bi dafa yàgg di Mouhamed Lamine Diayta ñu ngi lay nuyu di la beral cant di la ñaanal yàlla gudd fan bu ànd ak wér te li ngeen am jombu leen gàcce ngaalaama macha allah ñun kontaan nañu fii ci département de Mbour bi ñu yàlla boole ak yow sunu xol dafa sedd fii lool te lii du hasard daal waaw yéene ko liggéey ci nit ñi yéene wax jëf ba yàlla defal leen li ngeen bëgg kon nag ñu ngi lay jox kàddu gi yaak sa délégation yëpp di ñaanal tamit monsieur le président Euh, Bassirou Diomaye fay yenn bi yal na ko ko yàlla oyofal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax victoire bi ñëpp a ko doon ñaan yàlla waaw parce que daal du ñu sori yal na ne yàlla mottali incha allah. Euh, di nuyu mbokku taalibe yi fi teew euh, mbokk am di jàmm yu fi teew mbokk kilif di nuyu magaw yi fi toog yëpp ak nijaayam. di ne man dama am mbégte ci moom parce que bi ñu xamante ba léegi wax dëgg yàlla diggante bi day gën a rafet jël na temps ñëw seet si ma te at bu nekk da koy def te saa yu nekkee ci mbir mi mu ngi ak kurusoom di ñu ñaanal euh, yàgg na koo def te saa su ne da koy dolli amuñu fayam ren moo jël otoom ñëw ba sama place indil ma invitation bi ma ne ko incha allah rabi dinañ fi teew te nag dama ànd ak délégation muy kilifa gi ci parti bu ñu bokk euh, ci délégation bi dinaa ci lim euh, ànd nañ fi ak suñu imam imam ñaam bokk ci délégation bi muy kilifa diine mais ku bëgg suñu leader wax dëgg yàlla recevoir na ay yoon yoon këram ñuy waxtaan ci mbirum parti bi te tey fépp fu ñu dem bu ko jot mayee day bokk ci délégation bi donc ànd ci ak euh, Doudou Dieng Je suis sama adjoint fii ci département bi mais j'étais aussi le enseignant yi Sénégal c'est une biir parti euh, ànd ci secrétaire général muy Souleymane Koli moom tamit jàngalekat la fii ci Mbour euh, ànd ak Mamadou Dia euh, muy suñu leader fële Malikunda mouvement mais gis ni Sonko di doxale ñoo fekk si ñu seeyal mouvement bi ci parti bi ànd ak Papaloum muy suñu responsable commune de Malicounda moom tamit di jàngalekat ci biir parti bi tamit moo fa yore lépp luy élection te mooy former tamit ndongo yi ci wàllu gis-gis ci parti politique. Euh, ànd ak Babacar Thiandoum moom tamit di professeur de mathématiques bokk ci kuréel yoroon suñu mbiru élection yëpp ci Malicounda. Euh, ànd ak baaxum euh, baaxum nit la ku jege Mamadou Dia ànd ak doyen Ngom moom tamit jàngalekat la di ànd ak Ngom ci cadre politique euh, ànd ceeg suñu chargé des de l'organisation muy Assane Ba Mor ba aussi bokk ci comité bu ONCAT ànd ak Ibrahima Kanté moom tamit professeur économie la di jàngale Fatick bokk ci responsable parti ak Bamba aussi professeur anglais la moo yor kuréel enseignant yi fii ci Mbour euh, ànd ak Youssoufa Ka moom tamit jàngalekat la moo papalu ñoo bokk fu ñuy jàngale fii euh, ànd ak sama soxla muy Sophie Diouf ànd ak suñu jigéen aussi muy Ndeye Koura Kama ñu bëri bëggoon nañ fi teew mais jàng yee bëri événement yee bëri te ñu ci bëri aussi Euh, ñu ngi waajal bu baax suñu investiture bi muy le 2 donc délégation mënoon naa takku mais dañ ne ñeneen ñi rek comme weeru koor lañ nekk te coono ñu daj euh, ci deux semaines de campagne dafa métti lool ñu sorey moom dañ lañ jéggal donc loolu yëpp pour màggal bés bi waaw que bés bi bés yi Cheikh Abdou Khadre Djeylani te ñëpp. xam lañ taxawaayu ci diine ci ñoom la ñuy roy di topp seen enseignement man damay bëgg di ñëw fii parce que saa yu ma ñëwee ma am lu bees lu ma jàng ci yonente bi sallallahu alayhi wa ak ci diine bi de manière générale donc awma seen fay yàlla nag ren dafa def ñu jot ci nguur gi ñu ngi ñaan ci seen barke ngeen ñaanal suñu président yéen bi oyof ci moom parce que am nañ bébét bu am solo ci réew mi mooy fexe ba sénégalais seen dund yi ñoŋ ku ci nekk gis sa bopp ci réew mi ni muy doxe loolu nag di mission bi difficile koo xam Sénégal nu mu toogee mais yàlla moo moo yombal lépp te suñu kilifa yi fi nekk tamit dañuy ñaan ñu dolli ñu ñaan ndax Sénégal ñun ñëpp ko bokk keroog maa ngi koy wax samay àndandoo ma ne ko Bassirou Diomaye kàngam la ci parti bi mais léegi Sénégal la jiite donc ci diggante bu gàtt statut am changé na donc ku ko jotoo ko xamal ni président nga ma la il gère les affaires intérieures di di boole aussi l'extérieur muy diplomatie bi tous donc mu doon sas bu rëy donc ci seen baax ak si seen barke maam ñoo ngi leen di tàllal loxo pour ngeen dolli ñu ñaan ndax mission bi donc loolu laa amoon lu may wax ci kàddu yi di leen jaajëfal bu baax Chérif kontaan naa yal yàlla fay yal yàlla may gudd fan yàlla yàlla barkeel njaboot gi yal yàlla suturaal vraiment ku oyof nga statut bi mu am mais dafa wàcce boppam ba toll ak ñi te loolu nag xolam moo ko ko may ñaan yàlla yàlla kàttanal voilà jërëjëf kontaan naa trop voilà merci beaucoup dégg ñu askan bi yëpp jërëjëf <laughs> Touba bi ay jëriñ yow sa maam mooy Seydouna Mouhamed waaye nag nii rek nga mën a mel te fii ma taxaw sama ëttu kër goro laa taxaw ndax ñiy toog ñëpp ñooy sama maamu doom ji ñii di ay bàjjanam muy Madiane Diakhaté bon Cheikh Sidi bu yow dundal ba mu dund yow loo dund doyul sa dund gi am na njëriñ sang nga noo mun a mel sang nga noo mun a doxalee sang nga ndax sa maam mooy Seydouna Mouhamed maa ngi ziar waa kër Ali Bayta Rasul yëpp Chérif Seydou Mané ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di kontaan jërë ngeen jëf. rafet di xeeñ loo xam ni moom yeneen bi boo ko nuyoo nga xam ni moom moo selli jëmm selli jër maami Seydil Abdou Khadir Jeylaani ah Cheikh Cheikh Sadio Abi nee na يغني عنكم ود ولا يغني عنه ود صاحب ولا يموت إلا على بخزن الخاتمة أي درا بيتر خل ود بي يلا كتل جوك جبريل مجل كجوك سيدنا محمد سيدنا محمد جل كجوك أبا بكر جوك عمر جوك علي وجوك سيدنا عثمان أدرا بيتر آه محمد لمن على الهدى هداني ثم إلى طريقة جيلاني خلوت بقول يا ليبدن كوير من شيخنا جرزمتي أفاد خطبي أواخري مع العوائد بتي وقسوة وهو من أبيه وشيخي ما من نبيه وذاك من عند أبيه طالبي محبة أخياري وهو مقصد المطالب من هو معني حاضر رمضان Cheikh Cheikh Cheikh gi lay dégg bur yàlla nee na loo mën a jëf xamal ne man may basiirun maa ngi lay gis ayala borom jaam yi rabbul izzati wal jabaruuti rabbul izzati wal jabaruuti rabbul izzati wal jabaruuti la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah qabla kulli shay'in la ilaha illallah ba'da kulli shay'in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 Ya ya ya doy na ñëpp def ni ñu màggal yàlla borom jaam ñi nañ ko waalu yàlla ci tabax asamaan a ngi ba tey xaragul waaye nañ ko wóolu moom yàlla moo talal suufa gi suuf saa ngi ba tey bëddëkul nañ ko wóolu doy nañu kon yàlla ñu ngi lay ñaan rabbi zidd ala kullina la mu te mooy la ca gën yow yàlla ku nekk si ñun ñii toog yow mi xam si nit la ca gën ay yàlla borom jaam ni والله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار اي يلا برم جامني واي مولو بي دف لن ني ماغال يلا موي برم جامني ما شاء الله سيدنا محمد صلى الله قدمه در من ور من محمد وسد من سعب الأعساء والتواء تحت القجارة كسفر مترف الأدمة ينسمى وراودة الجبال سم من ذئب النفسي فأراها أيام السمم سيدنا محمد وأكد زدوء فيها ضرورة وي إن الضرورة لا تعود على الإسم ممي محمد مي سيد كل كونين وسقلين والفريقين من غرب ومن عجم فنك دانا وخ نينا رسول الله نياري تيميري تولكو يالا جوخ مي محمد tur boobee ñun ñëpp moom la ñu miin waaye Seydina Muhammad am na tur buñ ko naan Ahmadun moom mooy Xaamidun moom mooy Waqiidun moom mooy Maaqin jaamu na yàlla ba yàlla jox ko garaatu Abdallahi mooy Xabibullahi seen moom mooy Safiyullahi mooy Najiyullahi mooy Kalimullahi mooy Xaatimul Anbiyaayi seen moom mooy Xaatimu Rusli mooy Muxii mooy Munjin mooy Musakirun am na tur buñ ko mooy mansuurun mooy nabi rahmati mooy nabiyu tawbati mooy xariisun aleykum mooy maalumun mooy sihirun mooy saahidun mooy sayidun mooy masuhudun mooy basirun mooy mubasirun sayduna muhammad sayduna muhammad mooy mubasirun mooy nazirun mooy munzirun mooy nuurun mooy siraajun mooy taaha mooy yaasin mooy ya ayyuhal muzammilu mooy yaa ayyuhal mudassirun mooy basirun mooy nazirun mooy mubassirun mooy munzirun mooy mooy siraajun mooy misbaaqun mooy huddan mooy mahdiyun mooy muniirun mooy daa'i mooy mad'uun mooy mujibun mooy mujaabun mooy afiyun mooy afuwun mooy waliyun mooy xaqun mooy qawiyun mooy aminun mooy mamunun mooy karimun mooy mukarramun mooy matinun mooy mubinun mooy muawwilun mooy wusulun mooy zu quwwatin mooy zu kurmatin mooy zu makanatin mooy zu izin mooy zu fadlin mooy mutaaun mooy mutiun mooy muftiun mooy qadamu sidqi mooy qurwatul uswa siratul ayat kenn du yàgg sa yàlla te jaa mustaba muy mujtaba muy muntaha muy ummiyun muy jabaarun muy abul qasimu muy abu tahiru muy abu tayyibi muy abu ibrahimu fi jirama حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي المانئ من الممنوعين حسبي من هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبنا الله ونعم الوكيل gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen nuyu ñëpp ku nekk ci yéen ci turam ak santam jiital ci nuyoo bi waa kër seydina muhammad ñi toog fu ma toog ma wax leen ne ñoom fu ma toog ma wax leen ne ñoom yàlla ci boppam moo leen jiital sama damay faral di wax ne ku bëgg nopp nu nangul li yalla def ndax bu doon du seen maam sayidina Muhammad yalla du bind asman, du bind suuf du bind loox du al qalam du al arsh du bind lu nekk diggante asman ak suuf motax ñi ngeen di jiital ci nuyoo bi di leen wàcce seen wàccuwaay yàlla moo leen wax ci alquran innama yuridu llahu li yudhiba ankum rijsa ahli beyti wa yutahirakum tathira ahli beyti mooy waa kër sayidina muhammad ñi ngi leen di dëkk suñu loxo lu ñu nekk sumay rakk ak sumay doom yépp ak sumay jarbaat yàlla def na ñu nekk sumay xarit xam nga lu gën a neex nga am njaboot ñu nekk sa xarit waaw ndax njaboot mun nga am njaboot waaye du ñu nekk sa xarit man nag maa ngi sant yàlla suma njaboot sumay xarit lañu ku ci gën a tuuti ci ñoom bu ma woxee fii ba Tamba dinaa ko fa fekk si te bu ma leen waxee bàyyi leen seen yitte yéen ñépp ngeen fekk si ma ñu ñëw motax dama len di gërem di len sant di nuyo nak mbolam kelifa bu fi tok góor ak jigen ndax damay faral di wax góor ñi war nañu sétat seen bop de soxna yi bo moytu ñu upp ñu bir aljanna bi mala ko wax sétal tante bi ñom ñoo fi upp te tante bi tante sayidina Muhammad la waaw tante bi tante sayidina Muhammad la boo limee rek góor ñi tuuti lañu xoolal macha allah jigéen yi ñoo ko feesal te nii nag nañuy demee ba ci kanam rasulillah te seen taxawaay ci diine yéen xam ngeen ne du tey aïchatu radiyallahu anha moom moo jàppale seydina muhammad ba mu taxaw moo tax nag guddi bii guddi Cheikh Abdul Qadir li Jeylaani sultaanul awliya ki ko taxawal di Chérif Sidi Bouya mii toog yal na ko yàgg taxaw yàlla nañ ko fi yàgg a fekk si ñu fekk leen nag yéen waa mbuur yéen ñépp ci jàmm ak salaam muy gox gi muy fële gàdd bi ñun mënuñu leen fay yàlla seede na ko programme bu ngeen am dañuy kontaan pour yàkkamti pour ñu ñëw ci programme bi wax nga ne jamono yëpp génnuma yow xam nga ci dara man am ñaari at léegi tant yu bari du ma ci dem waaye ñii fu ñu woote rek ma fekk si leen ma fekk si ñi nga xam ne tamit ñoom it bugg nañu ma jàkkarloo ak ñoom muy waa Mbuur ndax doomi aadama ku la bëgg rek moo la sonal ku la bañ def la noppal waaye nag nañu xam ne guddi ci Abdul Qadir Jeylaani bii mooy sultanul awliya Cheikh Abdul Qadir Jeylaani bu leen yaakaar ne moom moo fi indi Qadiriya indi wu ko de Qadir mi ngi jógee ci yàlla wird bi ñëw ci Seydina Muhammad dem ci saaba yi muy dem bu egsi ci moom lu tax ñu tuddee tariqa bi El Kadiriya Cheikh Abdul Kadir Jilani lu tax ñu tuddee ko ko dafa ci liggéey loo xam kenn liggéeyu ko Cheikh Abdul Kadir Jilani mbooleem tey ku yore tariqa moom mooy sa sëriñ ndax wax naa ko fii daaw daaw jéeg xaw ma wax naa ne Cheikh Abdul Kadir Jilani Cheikh Ahmed tijan Chérif papaam Kadir la yaayam Kadir la moo wir dina cadre vingt quatre ans maamam dog ko seenu jox ko yoonu tijaan yi ñi ngi def loo xam ne lii sëriñ yi ñi ngi def politique boo xam ne politique boobu baaxul ñu ne la tiijaan warul dem si yaare ji cadre politique boobu baaxul innamal mu'minuuna ixwa la yàlla wax jullit jullit rek mooy sa mbokk ku nekk war na ziyaara si keneen ki wàññiwul dara waaye politique la lu ñu ko waxee bu ma demee ba ci biir enquête dëgg nekk affaire bi ndeke ñoom fiiraange la ñu ko jàppee luñ ci bañ seen taalibe dem ziyaare ji sëriñu si eh, kadriya mu gis ko mu dugg ci biir xolom mu mu dem mu jëbbalu ci moom loolu moo tax ñu baare taalibe yi di leen wax tijaan du dem ziyaare ji kadri te pourtant tijaan ci kadri yàlla génn sëriñ bu ko mun a weddi na yëkkati baat kenn mënu ko weddi tarikal kadiriya mooy ndeyu tarika yépp Cheikh Ahmadou Bamba indi fi la noonu kadir la ndey ak baay musu fi indi beneen wird sëriñ Touba léegi nag bu ñu demee nag boo di leen takkali te ñoom benn lañu seen gëm-gëm des na ndax jullit warloo sax xalaat ne yow ci sa bopp am na koo gën boo demee jullit xàkkan ndax dafa am ñaar ñoo xam ne ne ñu jaamu yàlla lañu dañuy jaamu yàlla jaamu yàlla jaamu yàlla jaamu yàlla ba ñu egg ci benn daraja boo xam ne na ëpp na ci yàlla yàlla di leen test mu ne leen mu ne leen dem leen ngeen seetal ma ki gina ki gina ku gën néew doole gën a gën a ñàkk solo ku ñàkk solo ngeen indil ma ko kenn ki dem mu gis benn dof boo xam ne bi mu ngi toog ci mbalitam def yu mu def mu ne yàlla kii de xam naa ne moo gën ñàkk solo keneen ki geestu xool mu ne yàlla man de bu ma demee boo gis dama gis na man maa gën a ñàkk solo ci àdduna man mu ne ko yow raw nga mu ne keneen ki yow yàqu nga doomi aadama bu gisee boppam rek yàqu na léegi nag bu ñu waxee loolu dañuy mel ne dafa affaire rëy la man nag fu ma toog duma def nii man nii laay jaar ndax amul sëriñ bu ma ragal amul sëriñ yi bu nu toogee ñoom ñépp ku fi gën a nekk kilifa fii bu toogee ma wax la lii ak ko doon te fu ma toog dama koy wax ndax gis nga sëriñ lo toog ci biir ay nit ay jullit nga leen di takli nga ne kaadir moo gën murit murit moo gën tiijaan tiijaan moo gën loolu affaire seytaan la du sëriñ yéen ñëpp yéen a bokk ak bàyyi kan ngeen ci jaamu kan yàlla kan la yàlla yónni ci yéen Seydina Muhammad léegi nag ana wute bi laa leen di laaj jullit yi bokk leen nu ngeen di jullee am na wute nu ngeen di takkee sey am na wute bu ngeen deexee nu ñu leen di suulee am na wute nu ñu leen di jullee am na wute wuyu leen ma léegi nag sëriñ bu waxee ne kii moo gën kii xam nga fu mu leen di génnee ak fu mu leen di rawee inna akramakum indallahi atqakum moo tax nag gis ngeen lii moo am solo bokk leen day ak baay jàppante leen te ngeen fóot xol yi ne ñu xam ne ku soxor du avancé kuy séentu nit ci torox doo yëg دومي آدم رفتل صخور إن يعلم الله في قلوبكم خيرا فليؤتكم خيرا ويلا دو خام تمونه بوما خامين سين خول يي لو باخ مو تي نيك مان يالا ما لين دي تال تي يالا خولال مو يوري ورسك مو يوري درجه موي جوخه موي خاج كينين بو في دون جوخه مصيبه ام موم مي جوخه نك ku muy jox mooy ku sell xol ku muy jox mooy ku laa biir yàlla faalewul suñu jëf de na ngeen xam loolu seen jëf yàlla faalewu ko ñun ñépp bu ñu sujjalee yàlla ñu sujjóot ñun ñépp duñu ko yokk lu toll nii ñun ñépp bu ñu taxawee ñu ne yàlla amul du ko wàññi lu toll nii te moo fi nekk nag te du fi jóge هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن moom yàlla moomu kuy jaayante ak موم دو موسى tarde te mu sell nag waaye boo jaayante ak moom ngay naxaate doo dem fenn da ngay saxaar waaye doo musa tag def nga agsi léegi boo xam ne bi neex na ma xam nga man bëgguma ko soxor il faut ma wax ko ci jama ci jeetaay bi balaa ma dugg ci ci firi bi ana xale bi nga doon dajal xaalis bi agsi bi yombul nit yonent bi sallallahu alayhi wa dafa ne bu defee lu baax da koy wax ci biir fu mu ko defee ku soxor munu ko ku iñaan munu ko ku bon munu ko bu nga ko defee man suma xol dafa set dafa mel ne yaa jël xeeru glace nga def ko suma xol bi non wallahi alazim sa moroom woykat tagg yonent bi muy tagg yonent bi nga jóg nga ne ñëw dajale leen ko xaalis bi ci àdduna bi te yombul waaye xamal ne nag cër boobu yàlla moo la ko may gis nga tànk sa xol mi ngi rafetee nii da ngay yéeg rek di dem fu ñu ne tey lay tarde keroog ngay gine yéeg te ñun ñi nga xam ne ni ñu ñoo yow yow yaay ñun ñun xam nañ la maa ngi ñaanal suma doom bële yal na yàlla def ci moom barke maa jigéen yal na yàlla guddal sa yaa xam li nga bëgg yàlla na la ko yàlla defal defal nga sa waajur loo xam ne billahi alladi la ilaha illa waatal naa la ko ci yàlla foo jublu yàlla fekk si la te wallahi yàlla na yeex bés boo génnee àdduna direct aljanna ndax yaa ko liggéey moo tax nag gis nga nit sa jëf rekk ngay fekk sa kanam ku yaakaar ne sa sëriñ da ko fekk sa kanam mi ngi toog di la xaar ci bàmmeel bi nax nga sa bopp amul sëriñ bi bu la waxee xam na moom fu mu jëm waxul dëgg mm-hmm. jaayante nga ak moom dëkkante ngeen loxo jaayante nag fii la nekk ku leen wax sëriñ amul day fen loolu tamit ku ko wax te ngeen xam ko def leen pexe ba ma toog mu toog boobaa seen xel dina sedd ku ne sëriñ amul def leen pexe rek ba ngeen def benn daje rek mu toog ma toog bu boobaa dina leer ndax waxu yàlla kenn munu ko dindi الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم yàlla def jaayante du tey xam nga jaayante mooy jébbalu mooy wasiila yàlla defa ne ñoo ñu jaayante ak yow sayidina muhammad suma loxo man yàlla mi ngi ci kaw seeni loxo kan moo ko mën a weddi wabtaxu inda allahi wasiila ut leen wasiila suma diggante man ak yéen yàlla ku jàkkarloo ak moom dootoo ko nettali yàlla mhm. mi ngi nii yaa ngi koy xool doo ko nettali leeru yàlla xejul ci kenn waaye nag da ngay jël wasiila mu nekk sa diggante ak moom lu tax mu indi alquran juróom-ñeent fukki tur yàlla ak juróom-ñeent lu tax yàlla indi ko xam ngeen pour lan la pour nañu ko njëriñoo ñun yàlla amu ci soxla yàlla amul soxla ci juróom-ñeent fukki tur yàlla yi mu indi yàlla soxlawu ci benn tuut ndax moom dara du ko yokk te dara du ko wàññi waaw sama doom ñëw na maa jigéen ñu ngi la doon jëw léegi jëw bu rafet yal na yàlla guddal sa fan yoo xam na nga bëgg yal na ko yàlla defal teraanga bi nga defal sa waajur bii ñun ñëpp nga ko defal ndax kii ñu ñooy moom moom mooy ñun suñu deret ak deretam jaxasoo na kenn mënul ci dil dara moo tax nag ñaanal naa la boobu da nga génnoon xamal ne ad yàlla defar na sa àdduna ak sa àllaaxira comme que yóbbu nga sa papa bi ba mu ziyaare ba mu dem baytullah al haram mu aj makka mu ñëw ziyaare seydina muhammad mu daw tawaaf ak marwa mu def tawaaf kaaba bi mu dem safa marwa mu dem minam dégg nga mu jógee fa mu tourné dem Arafa dem Musdalif ñëwaat Minam ku ko defal sa waajur raw nga àdduna ak Allah moo tax nag dañu war a xam ki ñu bind gis nga nit mënuloo xam sa bopp mënuloo xam sa boroom suñu boroom kese moo fi nekk te du fi jóge keneen ku ñu mun a mun a yaakaar muy yonent muy waliyu muy kum munta doon dañu ko ben jour dañu yeew tànk yi ñu suul ko ñu dem ci suñu kum munta doon moom rek mooy alxayi daim alladi la yamut yàlla moom rek mooy yàlla te moom kese moo dul fi jóge te yàlla soxorul nit ñi sëriñ yi ñoo ëppal am na sëriñ yoo xam ne bu ñu fi firi rek nga ne àllaaxira ñëw la yàlla nag melul noonu de yàlla dafa am yërmande ci jaamam lii jaamam di def ba mu lakk ko loolu day fekk ëpp na waaye nag xam ngeen ku mu bugg ki ne ku mu gën a gën a soxla moom yàlla mooy boroom xol bu rafet ku mu gën a soxla mooy ku amul keñaan ku mu gën a soxla mooy ku baax ndax gis ngeen lii ngeen di gis yépp amul lu ci yàlla may ku fi tabax te junni kër tamit da ngay ba dangay ngay dee bàyyi ko fi moomuloo ko suma kër suma kër suma kër suma kër du benn kër kenn amu fi kër benn jour day ñëw ñu yeew sa tànk génne la kër gi miraas bi bu jotee mun na am xale yi jaayaat ko keneen moom ko donc kenn amu fi kër xam ngeen luñ fi am mooy lu ñu liggéey ñu fekk ko ci suñu bàmmeel te gis ngeen bàmmeel bàmmeel dafa xat waaye jullit bu góor góorgóorloo tuuti du jul du gis mukk abadan malaikatul alal du leen gis góorgóorlu bi nag fu mu commencé bu leen nax seen bopp ñun sëriñ yi bu ñu leen nax na ngeen xam ne ku julliwul doo jullit xam leen ko ku julliwul katolik bi chrétien bi moo la tane ndax kooku am na li mu gëm yow gëmuloo dara yal nañ ci yàlla musal gis ngeen julli lu leen nit mu ne won na leen won première julli bu ñu nax suñu bopp ku xëy nga sangu juróomi yoon da tilim boo jullee ci suba diggante suba ak tisbaar loo fa def bu fekkee julli nga nga sellal sa julli yàlla daf koy effacer ba mu jeex nga julli tisbaar digganteem ak takkusaan loo fa def boo jullee boo jàppee julli yàlla effacé na ko waaye na nga xam ni ngay jullee mooy nan julli du sëgg ak siggi du sport na nga xam li ngay wax ci roko nga xam li ngay wax ci sujud te booy demee booy booy sujud juróom ñaari juróom ñaari cër yi dañuy laal suuf normal benn ñaari loxo yi fii ak ñaari loxo yi du ñett ak ñaari om yi ñaata tànk bi da koy sëmp da nga koy baaraam yi nii nga koy def dangay sëmp ñaari baaraam yi ñaari tànk yi nii nga koy def da nga koy sëmp nii boo ko sëppee nii juróom-ñaari cër yi këpp na am nga julli benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom-ñaar boo sujoodee nga jógaat nga nga waxuma nga siggara ko nga jógaat nga jóg ci sujuud nga nga nga am na ñoo xamee du ñu dellu ba ñu toog dañuy def nii rek defaat nii ñëwaat déedéet boo dog boo jógee ci roko toogaatal ba nga normal iblis dafa yor ay puso dina nekk juróom ñaari fukki junni puso xoolal li iblis di teg ci sa suuf léegi bu fekkee ne toogaat nga puso yooyu yëpp day dàmm loolu moo indi nag ñu bëri puso iblis yi moo tax duñu toogaat loolu moo indi li nga def nii rek nga defaat nii defaat nii déedéet puso yi moo leen di delloo boo sujjoodee dellaatal nga toog mi ngi mel ni nga nga boo rukkoo ee dañu la wax ne na nga taxaw boo defee nii rukkoo na nga taxawaat ba jug boo jug normal nga soog a def lii ku ko def nga war ko nga xam luñ ci wax te xam leen ne jàng julli dafa yomb gis ngeen ku fi jàngul tamit xanaa loo té téele da nga mën a jàng fatiha kul wallaahu ahad kul rabbil falaq doy na la ñetti saar yii rek boo ko mokkalee sa dund yépp sa julli sellal na nga jàng fatiha jàng ko lu wallaahu ahad nga jàng fatiha jàng ko lu rabbil falaq ñaari bu dee ñeenti rakka ara ñaari a yu mujj loo ci jàng fatiha kese nga ci jàng léegi nag lii di ko gën a yomb chaque jour ngay jullee benn ñaari saar chaque jour am nga julli yow ak ku jullee kaamil bi yéen a moo tax nag bu liñ nax seeni bopp julli mooy suñu saabu ku koy def da ngay set bu ñu jógee ci julli ñu ñëw ci si weer bu tedd bi weer bi nag day jege rek ñu bëri commencé saali suma cancer suma ulcère suma diabète docteur bi nee na bu ma woor tension yaa ngi nax sa bopp yàlla defa ne chahru ramadan leli unzile fi il quran fii lépp alquran bi wàcc ci weer bi faman shahida minkum shahra ku ko séentu ba gis ko vel yo sumhu nanga ci xana condition yi moy tax do او على سفرين فإدة من أيام أخرى خنا نجين فيبر ولا نجين توكي واي توكي بينك أك فيبر بيب تجي ول تسوكو لني وحكور نجين خملور دنجي دن دن كوي لب بو بدك فيبر ويرنجا فيا دنجا توكي نبسيجا فيا ngeen baal ma heure bi dafa mel ne mi ngi ci de heure bi mi ngi dem de euh liñu bëggoon waxtaan ndax gis nga bëggon na demal leen ci affaire luñu war yépp ci affaire li nga xamé né moo bu togué bu leen wax lu leen neex wax leen lu leen di njëriñ lu leen di njëriñ mo am sa amin ya rabbal alamin ñun ñëpp ak mboolem jullit moo tax gis nga nit bu ngeen boo toogee ca ñu yaakaar la ci biir mbooloo wax leen lu leen di njëriñ te gis ngeen julli bi bu ñu ci paasee ñëw ci koor gi bu ñu ci paasee dem ci asakep yi dem makka makka nag ala sa istata ilay ku ko attan yàlla tegu ko ku ko amul na ngeen xam loolu ku ko am nag yàlla teg na la ko bu loolu paasee nag yéen ñépp ngeen ñaanal yàlla Cheikh Sidi Bouye mii guddal fanam dama leen ko ñaan Cheikh yéen ñëpp ñaanal leen Sidi Bouye gis nga mi ngi man wax naa barke bu xaaree ba jaaw rek soxlatuma ko amatul benn njëriñ am barke ba nga am ba barke boobu de man ku yàlla bëgg da koy am fu nga amee doole bu boobaa ngay xam barke bi njëriñam bu boobaa ngay ci mun a jàmm yàlla waaye boo demee ba sonn ba feebar ba mënatuloo dara bu ñu lay yëkkati barke boobu ba njëriñ la am walla boo añee pour nga reer problème la loo koy doy moo tax nag ñaanal leen ko yàlla wér ak gudd fanam ci barke koor gi yàlla yàlla guddal fanam ah am nañ ci moom ñu ñi waajuram am nañ ci moom yaakaar bu baax a baax a baax mbokk yépp am nañ ci moom yaakaar yàlla bu yaakaar bi tas ndax li muy def nii wax dëgg yàlla ah eh, ku nekk bëgg na ko def waaye cër boo xam ne yàlla moo koy joxe ni muy góorgóorlu ci xale yi di def ci seen xol yi diine di def ci seen bopp diine yàlla na leen yomb te na ngeen xam ne ànd bu nekk de am na solo waaye ci ànd ak waa kër Seydina Muhammad ànd ak ñoom du noonu de cër boo xam ne ne yàlla moo la koy jox chance la mu ngi mel ne yonent bi jamono ñi doon toj bopp bi di ko def lu ko nakkari yàlla boolewuleen ci hmm. nitu safara lañ motax nak ba léegi wa kërëm dedet ci aduna bi xam ngeen lan moy seen misal safinatu Nuux ñi ci duggoon raw nañu ñi muccu nañu ñoom ñëpp raw nañu ñi nga xam ne ne dugguñu ci yàlla alak na leen mooy waa kër Seydina Muhammad yàlla ne ñu yàlla musal ti bañ leen ndax na udu billah ku leen bañ yowma laa yanfau maalun wala banuuna illa man ata allaha bi qalbin salim bés boobu ku leen bañ doo sedd seen maam rasulillah waaye nag ñu ngi gërëm ñi toog ñëpp ay kilifa rek ñoo fi toog muy góor muy jigéen gis nañu jigéen ñi seen taxawaay yal na yal na yàggal seen taxawaay yàlla may leen wér ñi amul jikkër yàlla na ñu am jikkër ñii nga xam ne ne ñi ngi sëy yal na leen yàlla saxal ci sëy bi ñii am ay doom yal na yàlla def barke ci doom yi na ngeen toog ba ngeen lekk seen barke doom lii dara gënu ko neex te bu leen jaralul woon toogaay toogaay dafa mm-hmm. a ngi nekk ci koor bii buñ leen ko jaralul woon wallahi du ngeen ko def waaye yàlla na ànd bi nekk rek ba ci kanamu Seydina Muhammad yàlla bu mu nekk addu ànd àdduna kese loolu rek lañ doon wax heure bi dem na ma jox Chérif Sidibouya mu mottali tuuti rek après. nee na li mu ci waroon wax yépp kilifaam gi wax na ko. nee na mënula ñàkk kàddu cant ak ngërëm. ndax guddi gi. nee ñoom ñoo ko sos. wante moom mii di Cherif Sidi Bouya dafa am ñoo xamante ne ñooñu la àndal ci guddi gi nga woote yomb na waaye ñu wuy si la jafe na te yàlla may na ko ci mbaaxam ak kàttanam bu wootee bâche bi fees dellu ñu baax ñépp ñëw nee loolu da koy sante yàlla nee na di julli ci alayhi salaatu wassalaam guddi gi mi ngi jiital ci cant gi ñi jaayam di papaam di léppam di cheikh na cheikh Cheybani Aydara ndax guddi gi def na ci alalam de def na ci dooleem def na ci lépp macha allah nee na lii mu sol nii nee na sang bi moo ko solul nee na ñi ko xottil bari na waaye moom bi mu ko xottilee la bàyyi lépp luñ ko xottil daan ne bi ma sama sang bi jox moom lay sol ki nga xam ni boo ko waxee boo ko woowee mu déplacé wu ñëw joxoo ko joxoo ko addiya moom sax nag moo lay jox kooku xanaa li li ci des rek ñu ñaanal ko yàlla mu yàgg fi mu yàgg fi lool te ànd ak wér moom Chérif Cheybani suñu waal yi suñu mag di suñu xalifa kër di cheikh na cheikh alxadrami doomi cheikh na cheikh Saad Bou teew ci bâche bi waaye dafa am دفا دم زياره امام علي الصلاه والسلام شيخنا شيخ عداتي دي قرم نجايم شيخنا شيخ حضراني برم فنجو حد معلوم doomi Sidi Ali ak doomam di Babacar bàyyiwul kenn ay dara mi ngi beral cant nag xaritam bi di Cheikh na Doucouré ki nga xam ni ruuxam la xaritam la benn jëmm lañu te duñu ñaar moom mi Cheikh Doucouré mi xam na moom mi xam na yàlla xam na doy na nee na ki nga xam ni mooy jigéenam di sëram di soxna Fatimatu bintu Rasul Dugure nee na indi na fi teranga bu bari ci guddi gi yàlla mi am fay yàlla na la yàlla fay Dugure barke Muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na magam yaay ami sek di soxna Ndey Ami Seck def na fi teraanga ju bari ci bis bi yàlla na ko yàlla fay yàlla mi am fay yàlla na ra yàlla fay góor a jóg ki nga xam ni mi ngi Italie daaw ñoo bokkoon nekk ci bâche bi moom it tabaarakallahu ma sha allah def teraanga ju ci bis bi cheikh na cheikhul Hasan na du ko fàtte nee na xam nga lu tax ñoom ñaar benn jëmm la ñu nee na yow xam nga nee na ñëpp xam nañu diggante moom Cherif Hasan na bu ko tuddee bu ko tuddul nee na tudd na tudd na ko def na moom it teraanga moom Cherif Hasan na nee na Cherif Hasan na mii nee na chaque année la koy defal euh, teraanga ñi ngi gërëm Malamin fal Faal momit terangga, def na teranga yalla mi am fay yalla nako ko fay Cheikh Ahmad Tidiane Tambédou ki nga xamane moko bolé télévision bi ñu kay ñaanal yalla gudd fan di beral cant DG Moussa Diallo mo yebal na cameraman bi di seigne Fallu di Widish TV ñi ngi len di ñaanal yalla di ngeen bëgg ci média yalla na len ko yalla agalé neena na mi ngi gëreem nak mustafa Diouf ak xaritam di xaritam di leppam di Ramadan sen. neena ak ñi mu andal ñepp ak soxna Aida Amar ak Hassan mi ak soxnaam nee jigéenam yi toog itam mi ngi leen di beral nuyoo nee yaayam di jigéenam di Aida Ndiaye Aida ñu ngi sunu yaay Adja Penda ak Adja Ndiaye ak suñu jigéen Ndeye Marème Diaw waaye nag papaam di xaritam di soppeem di léppam di Cheikh Ali Diop ñu ngi koy ñaanal yàlla gudd fan bu ànd ak wér moom ak Ndey Marème doomam ñoo ngi nii toog ci bâche bi def nañ ci seen teraanga ak seen kattan ak seen lépp yàlla mi am fay yàlla na yàlla fay leen ñu ngi gërëm xaritam di léppam Abdusalaam Njaay ñëw na fi yàkkamti dem te jëlul kaddu te waroon naa jël kaddu nag nee na ñëw na def na teraanga jox na xaalis bu bëri sax ci bâche bi yàlla na ko yàlla fay barke Muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na mi ñuy gërëm nag bu baax nag waa Mbour waa Zone waa Gàddga waa Njurux ñi nga xam ni ñoom ñooy ansaaram fii ci Mbour lépp lu Cherif soxla lépp lu muy def ñoom lay àndal ci liggéey bi yàlla mi am fay yàlla na yàlla fayal bu tëddee président bi yóbbaale ñëpp nuy Cheikh Jibi Fall mii toog nee na te xam ni Cheikh Jibi mii liggéeyam ci moom mii ak liggéeyam ci kër Cheikh Sadbou wulu Cheikh na Cheikh Daay nee na kenn umpale wu ko ñëpp gis nañu liggéey Cheikh bi xam nañu bu baax yàlla mi am fay nee na bi yàlla la yàlla fay. nee na yow mii rek bu la tuddee tudd na Muhammad tudd na Imaam Aliou tudd na Salik tudd na waa kër gi tudd na Moylik tudd na ñëpp nee na bu tuddee nee na yóbbaale na ñëpp yal na leen yàlla fay ñi nekk ci waañ bi nee na yal na leen yàlla taxaw tufe yi neex na càpp yi neex na soos bi saf na sàpp macha allah. du soosu naar ne soosu géwal la ma mas naa a neex na lool nee na yàlla na yàlla seral seen xol Chérif nee na yaakaar na ni fàttewul kenn ku mu tudd ak ku mu tuddul xel day fattu bàyyiwu kenn mi ngi leen di sant di leen di gërëm di wax ne alhamdulilahi rabbil alamin nee na lii xaritam papaam te mu dëggu lool ci bëgg bi mu bëgg nee na bu ko gisee nee na nee na papa bi day kontaan nee na njabootam dañoo jokk ci moom rawatina nag di taalibe boppam di papa papa Diop kon papa lii nee na yaaka moom xam na ni heure boo xëyee suba jàkkaarloo photo bi di nga jërëjëf Diop jërëjëf macha allah rafet na lool jërëjëf nee na bi nee na DG DG wu télévision bi moo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 jërëjëf jërëjëf